weer wu ne ak suñu partenaire PAMECAS danañu jël fukki million jox ko fukki groupe fukki millions yooyu nag lu mat leeral la ñaar fukki millions yi ñu joxe tey mairie de Mbacké joxewut caution man ci sama wàllu bopp maa jël caution versel ko jigéen ñi versé leen garantie ubbil leen kon fay faye leen frais d'entretien pour que ñu mën a am financement 21 millions te weer wu ne dinaa jël sama àllu bopp dugale leen caution ñu financé leen bëgg naa gàtt-gàtt weer wu ne ñu financé fukki groupement ku ci nekk groupement bu ci nekk 1 million muy 10 millions par mois ak suñu partenaire bii di PAMECAS mhm. li ñu ci jublu mooy jàppale jigéen ñi pour ñu mën a am financement seen dërëm du ci dem yombul nag ndax sacrifice la laaj te sacrifice boobu def naa ko pour ñoom te ñaan naa yàlla mu may ma mu continuer di ko man pour ñoom tëjuñ ko nag rek pour jigéen ñi ndax waa marché bi rek tey wax naa ki nga xam moo mooy délégué bi pour que ñoom ñu wut ñaar fukki nit ñu mën leen a wutal caution ak garantie ak ouverture de compte ak frais de compte bu ko defee ñu mën a bokk ci programme bi pour mën a bénéficier wu ci financement yi xale yi tamit ñu ci dajaloo am programme bu wóor ou bien ñu nekk ci activité su ñëwee dinaa leen wutal gaz garantie ak costion ak frais de d'ouverture de compte ak frais d'entretien de compte pour que ñoom ñu mën a bénéficier wu ci financement yi pour liggéey. li am solo mooy ñun nañ def li ñu war président de la république dafa bëgg ñu jàppale ko ma xamal ko ne ko ba ñu ma laa jàppale wante danga may jàppale ci Mbàkke du poste de responsabilité bu ma bëgg ci rajo laay ak télé ñaan laajuma ko kenn ñaanuma ko kenn du xaalis bu may laaj joxuma ñaari fiftin joxuma poste de responsabilité bu tax ma war a dugg ci politique poste de responsabilité bi ñuy wax conseil spécial premier ministre c'est un poste technique boo xamante ni yaay xel premier ministre ci domaine yi xóot bu ñu wóoluwul sa xam-xam duñ la ko jox kon post ba ma fa yore poste xam-xam la poste liggéey la bu stratégique kon la ma seq ak président bi mooy jàmm ak salaam ak it fas ko yéene jàppale feek lim ma wax ci Mbàkke mi ngi koy def ku daw ci Mbàkke ma daw ci yow ku waaxu ci Mbàkke ma wax ci yow ku dox ci Mbàkke ma dox ci yow ku taxaw ci Mbàkke ma taxaw ci yow c'est aussi simple ñun Mbàkke la ñu am moo ñu gënul lépp président bi nag dëgg yàlla engagement bi mu jël pour jàppale ñu lu mu gën a dëgër rek ñun ñu gën a dëgëral suñu engagement.